salaamaaleykum senegaal salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam kom ni ko sama naataango bi waxee daanaka mën naa ne message bi benn la li duur ci nag bi nag xajul ci cin bi li ñu fi dajale tey moom mooy Benno ci Kër Massar benn bennoo ci Kër Massar boobu nag waxewuñ ko rek dañ ko bëgg a jëfee jëf ko nag wax dëgg fa yàlla duñ ci xaar kenn ndax ay doomu Kër Massar lañu mais ay doomu Sénégal lañu tey lii ñu fi dajale wax dëgg fa yàlla mu nekk tey développement Kër Massar te Kër Massar yaakaar ko su ñun te xam ne ñun kese mënuñoo dem ñun kese mënuñoo matale wuñu suñu bopp dara tey bés bu Sénégal taxawee domi Kër Massar yeb taxaw neena yeen lañu wolu te am nañ ñu cofeel ci yeen pour ngeen and wax deug fa yalla askan bi nga xamantene nak ñom ñoo si sunu am ñi nga xamantene ñom ñoom ñoo jiitu ñun ñu top len wax deug yalla amel nañ leen njukkal waye ñun tamit am nañu biir. donc lool mom mo sabab ndaje bi ni ñu waxtaan ci depuis des jours et des jours yalla def nak tay ñu fasiyene taxaw si kanam media bi wax leen li nga xamantene mom moy mebeut bi nga xamantene am nañ ko si Sénégal plus particulièrement tay par exemple si département bi nga xamantene mom moy département bu bees comme niko sama naataango bi waxee wax deug yalla lool mom mo sabab suñu taxaway fi mais di sant ak gërëm ñi nga xamantene ñom ñofi tew fi presse bi nga xamantene ñom ñofi ñew fi ñong leen di sant di leen gërëm ndax li c'est pas évident d'ailleurs li andi erreur bi nga xamantene mom ngeen di wax bañ xajuñu si salle bi et puis wax nañ dëgg c'est parce que tamit ñi ñu ànd ak suñu ay nawle lañu mënuñu nekk si kaw ñoom ñu nekk si suuf mu mel ni dañ leen di gën a lekk suñu bopp loolu moo tax ñu am yéene ñoo wàcc seen bi ndax ñoom ñoo tax ñu daje fi tey donc loolu moom moo tax andi suñu sabab fii ñu wax fa di ñaanal euh, ñi nga xamante ne tey ñoom Sénégal di ñaanal sama naataango bii nga xamante président Ghana yéene bi nga xamante ne moom la bagas am si lii ñu bëgg a euh, taxawal nañ ba Sénégal bi nga xamante ne ak Kër Massar bi nga xam ne dañoo yaakaar si ñun yalla motaliko ko cër bi yalla nako yalla yaatal ndax xaj Sénégal yépp xaj nañ ci mouvement bi mouvement politique la wala mouvement politique. non mouvement bi mouvement politique la. fan la fété mouvement politique la amaguñu adhésion si ki ñu wara andal wala and ñoo ki duñ dañoo nekk fi pour askan Sénégal nekk fi pour askan Kër Massar donc loolu ñu nekk fi nak on est indépendant.

Euh, non yi nga xamanteni ñom ñoo taxaw yaakaar ni Kër Massar duñu and ñun paré nañu pour daan non yoy non di wo ñep ñew ban division ngay wax may gis nañu Kër Massar waa doomi Kër Massar ñoo ñoko jité commune bi wala bokk ñi nga xam ñoo fële ci nguur gi fan ah, division bi nek non division bi duñ ko wax si kenn si doomi Kër Massar rek lañ ko mëna waxé c'est parce que ñom ñom leader yi fi nek tay ñom lañu gisul ñu and ñun tamit leader yi fi nek tay ñun duñu gis ñu askan bi moñu taxajuk ñu baña né dañuy and ak ñom comme askan bee ñu tax askan bi mom moy le peuple ta peuple bi tamit tay mom moñu jiite ci liñuy def ni ndax sans ñom ñun duñu dara donc ñun dañu préférer tay li nga xamné mom moy mooy peuple bi ñun ñu ci ak ñom ñom ñu ñun ah bon population bi de ñu lool mom sañ nañ ko wax donc seen yaakar su ñun ñi la nekk nak ñun nak dinañ and nak ngir yaakar bobu non ñu jëm ko yëkëti nguur gi doxalu fi nguur gi duñu né doxalu fi ndax limu mën mo ngi def mais en tout cas dal doomi nañu te ñii ñu yaakaar moom mooy Gana Kebe Moussa Camara lañ yaakaar te loolu nag ñoo ngi siy tàllal loxo képp kuy euh, acteur politique. nga ñëw nga dugal urgence mooy urgence tey fii si Kër Massar jàpp ngeen war na ko mën a saafara ci ay jafe-jafe. bon urgence Kër Massar moom bu ñu ko waxee moom daanaka lépp la problème emploi des jeunes moo ngi fii tey loolu man problème bu ma gën a préoccupé si lii nga xamante ne moom lañ taxawal nii.

aux états kii à l'état di Sénégal ñoom ñëpp ñoo taxaw jàppale njaboot Kër Massar te xam ne tamit si seen njaboot lañu bokk Kër Massar du ñu ay noon du ñu seen ay noon mais si Sénégal lañ bokk nañu jàppale Sénégal. mais est-ce que kon ça di ngeen ko bàyyi loolu la ñu ubbi nii ndax lii ubbi la suñu buntu kenn dañoo ubbi. pour que ñun ñaar xeyna buñu taxawé talal loxo ñep ñep dinañ ñew ndax bu nekk man kese ma fi taxaw di woté mën nañ ma baña faalé mais buñu gisé tay ku melni président Gana Keme ak limu représenter ci Keur Massar wax deug Yalla bu taxawé ma taxaw daanaka ubbil nañu suñu buntu ñep ndax ku melni maire Fat Diène aussi tamit nga xamné tamit présidente ki la ta de des femmes la mu nekk fi ci département de Keur Massar wax deug Yalla bu ñewé taxaw tamit suñu daanaka lañ kay rafetlu te xam naa ne moom kese du si yem ndax bëri na ñoo xam te ne bëggoon nañ fi teew am na ñu woo démb ak barki démb yëpp di wax tamit yéene bi nga xam te ne moom la ñu am nii te incha allahu rabbi ñoom ñëpp dinañ si ñëw ndax dinañ waxtaan ak ñoom. ok en France vous revenez un peu sur euh, l'objectif de cette union que vous venez de sceller aujourd'hui entre vous et Gana Kébé. waaw l'union que nous venons de de sceller entre moi et Gana Kébé c'est pour l'intérêt de Kermassar. parce que les fils de Kermassar en a besoin le département de Kermassar en a besoin mais plus particulièrement le Sénégal. Donc nous, moi et Garnet Québec, nous avons ficelé cette euh, union uniquement pour l'entrée du département de Kermassar et travailler pour le développement de Kermassar. Parce que quand on voit par exemple Kermassar, tous les urgences sont là. On ne peut pas parler de Kermassar sans pour autant parler par exemple des urgences. L'emploi des jeunes qui, sont, qui est là, euh, le financement des femmes, euh, l'inondation, l'insécurité. Donc on peut citer autant d'autres problèmes qui, se situent actuellement à Kermassar. Maintenant, euh, en tant que responsable politique, acteur politique, acteur social, Moussa Kamara, en tant que responsable politique, acteur social, nous avons uni nos forces pour venir la population de Kermassar en aide et de donner rendez-vous à toute cette population-là pour l'avenir. Et Inch'Allah, il y a d'autres programmes que nous allons ficeler euh, peut-être dans quelques jours, Inch'Allah, on va vous inviter pour plus d'éclaircissement et plus de, Et vous avez parlé de l'emploi des jeunes aussi. Ça que l'État du Sénégal a eu sur ce point aussi à Kermassar ou bien bon, On ne peut pas, par exemple, citer de doigt à l'État du Sénégal. Parce que pour pointer du doigt à l'État du Sénégal, pour moi, l'État, c'est nous. C'est nous d'abord. Parce que toute personne, par exemple, qui œuvre dans les activités étatiques, c'est vous l'État. Et maintenant, cette population qui est là, derrière l'État, nous devons par exemple les appeler et venir par exemple en aide par rapport à la population sénégalaise pour euh, au moins donner notre force, mais quand même donner nos idées et nos forces de, de faire pour le développement du Sénégal. les communes du département ne jouent pas le rôle Bon, on ne peut pas compter sur les communes parce que les communes, ils ont été élus comme tous les autres communes. Maintenant, bon, tout ce qu'on espère d'eux, on ne peut pas dire que par exemple les communes ne jouent pas le rôle. Il y a la population qui est là et qui part en témoin. Maintenant, nous, en tant qu'acteurs de développement, ce qu'on peut faire, c'est d'appeler par exemple cette population, toute personne qui n'est pas satisfaite, de venir rejoindre par exemple notre mouvement et travailler pour l'émergence de Kermassar. C'est ce qui nous lie et c'est ce qui a fait appel à tous ces gens-là. Le mouvement, c'est un mouvement politique. Vous êtes, du côté de l'opposition ou du pouvoir pour le moment, on n'est pas encore euh, affilié à aucune des parties, mais on est en train de travailler pour le développement de Kermassar. Et Inch'Allah, les jours à venir, nous allons par exemple montrer un feuille de route et travailler pour l'émergence de Kermassar.